waaw maa ngi nuyu waat ñëpp di remercier waa Sénégal yëpp comme ni ko sama doom bi waxee wax na lépp mhm. di nuyu waat waa Pastef ñu nuyu waa Pastef macha allah yéen bi oyofoon na ndax waa jàpp nañ ci bu baax diaspora bi bàyyiwuñu kenn kenn kenn Pastef moom kenn xamul lan la mhm. kenn xamul lan la ndax bu dul woon ñoom tam dana gën a metti ci mhm. ñun alhamdulilah man daal comme li ma la ko waxee rek damaa génn sama kër parce que Colobane laa dëkk bi ma génnee kër gi jéegi monument bi kuy dem foo munti dem côté Gueule Tapée wala Fass dangaa war a jaar monument mhm. boo jaarul monument foo jaax bi ma jéggee tali bi dama taxaw net rek commissaire bi taxaw foo jëm ma ne ko damay dem wakaam mu ne ma looy wuti wakaam ma ne ko dama am dëcc te maa ngi sol yu weex nii de yor sama kol yor sama saak dëcc nooy demee wakaam di jaax par monument ma ne ko lu tax jëmoo Colobane ma ne ko Colobane amul oto wakaam oto wakaam il faut ma dem ba Gueule Tapée ba Sàmm mhm. jël fa oto wakaam jël damay ñëm ba marché sama bureau HLM H&M. mhm. bu ma demee bureau HLM am na rapide yu dem euh, Sàmm dama koy jël wàcc Sàmm jël oto wakaam mu na ma déedéet mënoon nga dem Colobane jël fa oto ma ne xanaa yow dëkkoo ci dëkk bi nag mu ne ma ne léegi ubbil sa saag bi mu ubbi sama saag mu ubbi gis fi fekk sama braza dama ko defoon sama biir saag sa bracelet bi nii bracelet Ousmane Sonko loolu rek li mu gërës gisee bracelet bi rek mu ne leen embarqué leen ko. dafa gis bracelet bi mu ne embarqué bracelet rek mu ne embarqué. xanaa dafa coïncider ak jour manifestation wala amul woon. amul woon manifestation. parce que monument bi amul woon manifestation mais nee nañ ñoom nee nañ parce que xam nga loolu lañ lay sosal nee nañ dafa amoon manifestation man de gisuma fa kenn ñoom kese ñoo fa nekkoon ak seen ay oto. yóbbu ma quatrième teg ma fa defal ma retour parquet six fois. yóbbu ma campagne ci noonu kese ci noonu kese yóbbu ma camp pénal naam sax Pastef laa bokk. Mhm. am naa droit sax Pastef laa bokk. Mhm. am naa droit bokk fu ma neex. bien sûr mais c' est que rek kii Pastef boo pare ubbi saagu nit ki ba gis si braza nekk loolu rek tax nga defere ko c' est trop xaw mu ban Sénégal lañ nekk. ci charge yi ci charge lan lan lan la ci waxal. nee na man autorisation dama manifester manifestant non autorisé la la la assisté. ak trouble public bi ñuy wax rek. waa dafa mel ni yéen ñëpp yéen bokk charge ñëpp bokk charge mu ngi noonu ñëpp ñoo bokk charge. nga def fa 7 mois. ma def fa set mois mais sant yàlla rek sant yàlla. sant yàlla ndax boo xalaatee ñi ñàkk seen bakken. Mhm. da santaat yàlla. ba ki démb moo tax maa ngi leen wax message yi ñu may yónnee ba tey mënuma sax téléphone yi ma ba tey supporter surtout douleur xale bii gaañu Colobane. xale boobu nu ma méttee amul nu ma méttee moo Modou Gueye Modou Gueye métti na ma trop trop trop trop trop mais boo xalaatee loolu yëpp sant yàlla rek dellu siwaat suñu xel ci yàlla te xam ni nag dëkk bi comme ni ko sama doom bi waxee rek ñëpp nekkoon en suuf si dara dara dara day def mun amoo droit def lu la neex nekk Pastef daal déli la ci dëkk bi amoo droit bëgg ku la neex amoo droit bokk ci fii c'était trop. waaye ñu ngi sant yàlla sant yàlla. mais sept mois yi nga dundee euh, feneen camp pénal lan moo la fi gën a marqué. parce que ñu bari sénégalais ñi ngi découvrir ni naka te rëbës ay mineurs dañ fa doon dugg. ñu ngi koy découvrir ci trois jours yi nga xam ne ñu ngi bàyyi nit ñaa ngi génn. est-ce que mineurs yooyu tam gis nga leen fële ne ca camp pénal ñun mineurs yooyu bi ñuy dugg rëbës ñun xamoon nañu mineurs yaa ngi dugg mais xam nga bu am na moment boo xam ne koo wax dañ naan Pastef dañu bari wax waxee ñu da ngeen bari wax dëgg kese la li Pastef doon wax yëpp dëgg la lépp fi nekkoon mineur gi même ñun suñu suñu côté Pastef amuñu mineur ñi fa nekkoon mooy sama xarit sama doom yi maa ngi leen di nuyuwaat de passage. Mhm. Yacine Diagne Nafisatou Gueye ak euh, Mathi Sarr Niang. ah yéen a bokkoon fi ngeen nekkoon ñoo bokkoon fi ñu nekkoon xam nga ñun dañu am banque foofu dañu amoon banque Pastef foofu Pastef li ma lay wax rek kenn xamul lan la famille la. kon jamono fa ñoom Fala Fleur nekkoon. Fala Fleur la nekkoon Fala Fleur fa la ma bàyyi. jàmbaar la Fallou Fleur macha allah moom tam maa ngi koy nuyu bu baax. macha allah maa ngi koy nuyu bu baax mère Amidia maa ngi koy nuyu. sa famille nan la dundee sa incarcération metti xam nga jeeg bàyyi sa njaboot. bàyyi say doom. bàyyi sa doom. nan lañ leen ko annoncé xale yi metti na metti na parce que man yàggul bi ma demee ay minutes rek la def bi ñëwee sama yaay dañ ma jàpp sama yaay dafa mujj feebar sama ginnaaw. maa ngi koy ñaanal moom tam yàlla may ko wér may ko gudd fan gu bari gari dafa feebar sama ginnaaw bi ma ñëwee ni ma ko fekkee neexuma ma ko fekkee fekk boo xam ne moom mooy mooy loolu waaye maa ngi sant yàlla di remercier waat waa Pastef ci sama feebaru yaay taxaw nañ ci bu baax taxaw nañ ci bu baax di leen ñaanal yal nañu yàlla may ndam yàlla suturaal ñu sàmm ñu sàmmali ci topp ba pare xale yi tamit mm-hmm. borom ñi ñu borom cër yi mm-hmm. surtout ñooñu tamit ñi kenn mënul wax yëpp kenn mënul wax yëpp da nga découvrir da nga découvrir beneen monde. ci hmm, ci ci ci milieu carcéral bi beneen monde surtout li ma gën a marqué nag ci biir camp mooy jour bi ñu grévé. suñu jour la faim mooy seen grève de la faim bi yàlla rek moo ñu dimbale. neuvième jour bi ñu bi ñu grévé si suñu problème yëpp commencé dañu jour neuvième jour bi ñu xiifalee si suñu problème commencé foofu waaye nag ñu dëgër rek xam nga patriote moom du ragal. neewoon na ñëw foofu tam amoon na ay xeex. sant yàlla waa sant yàlla rek. sant yàlla rek génn nañ si ci jàmm salaam rek sant yàlla. d'accord dinañ ñëwaat ci yéen ñaan ñi balaa bu damay dem ci euh, Adama euh, Sima moom nga xam ne moom dafa bokk ci collectif euh, suivi déjà la question que tout le monde se pose mais yéen waa Pastef nan ngeen di mën a def nan ngeen di def mën a répertorier nombre de militants yi nga xam dañ ko dañ leen teg loxo comment vous avez fait nan ngeen organisation mu noonu dafa jaaxal ñëpp.